asalaamaaleykum mbokk Sénégal asalaamaaleykum mbokk internet asalaamaaleykum ñi nga xam ne ñoo safoo Touba Argentine TV nga xam ne ñu ngi koy seetaan ci YouTube Touba Argentine TV di ko seetaan ci Facebook nga xam ne ci logo bii ñuy wax tubaa Argentine TV lañ koy amee ñu ngi leen di ziar di leen nuyu waaw tey nag je me présente comme le directeur général de Touba Argentine TV muy benn chaîne boo xam ni via internet ñoo koy fexe ñoo ko taxawal fii ak suñu mbokku techniciens yi ñu koy wax Goro Seck ñu taxawal ko di jëmbal pour wane information yi nga xam ne sénégalais yi ñu ngi koy dundu fii seen i activité ak seen i seen i yiteeg ak lépp loo xam ne ñu ngi koy dund fii ci réew mi ak bitim réew beneen yeneen réew yi ci loolu ñu amoon mébét yu bari nga xam ne dañu taxawaloon benn plan d'action mooy benn plan boo xam ne ci lañ bëgg liggéey ci jamono yi ñu nekk naam sax ñu ngi koy doxal mais am na émission yu bees yoo xam ne dafa taxaw bi ci njëkk mooy am nañ benn émission boo xam ne sur la culture islamique mooy sa diine fàttalante nga xam ne Serigne Mourtada Touré moo koy animé ñu toftal ci émission boo xam ne nii c'est une émission par la sur le mouridisme en wolof et en langue espagnole muy émission boo xam ne nii ñu ngi ci xamle qu'est-ce que le di ko wax ci langue wolof mais aussi di ko wax ci langue espagnole pour ñi nga xam ne ñoom la ñu dëkkal di ay espagnol nga xam ne ay argentin espagnol la ñuy làkk ñu mën ko xam mën a xam kan mooy Serigne Touba lan mooy ay mébétam lan la woote ak doctrine mouridisme lan la présenté sur le plan mondial parce que du ma bàyyi ma taay di ko wax c'est la troisième doctrine mondiale le sauveur de l'humanité comme ni ko suñu ku tedd gi Cheikh Modou Kara di waxee ñu toftal ci émission boo xam ne nii c'est une émission qui se présente comme une émission qui présentera l'ensemble des daïra et leur mode d'activité et leur mode de fonctionnement c'est-à-dire muy émission boo xam ne dañuy dem fekki daay yi xool ci li ñu nekk xool ci li ñuy dox xool nan la ñuy fonctionner seen jëwriñ ñu da dégtal ko nañ ci ànd ak suñu mbokku taalibe ñu koy wax assan bay Fall ci loolu ñu toftal ci beneen émission muy émission boo xam ne nii c'est une émission qui vous permettra d'apprendre la langue espagnole chez vous sans bouger via Touba Argentine TV jaarale ko ci YouTube muy émission boo xam ni da ngay jàng espagnol te doo jóge sa kër da ngay toog. taal sa portable dugg YouTube jàpp Touba Argentine TV ngeen ànd ceeg un professeur boo xam ne xam ngeen ko mu jàngal leen espagnol ci langue olof langue français lépp ngeen xam ko te doo leen fi ngeen tëdd. ñu toftal ci beneen émission mooy une émission qui vous per qui nous d'implanter la culture sénégalaise ou l'intégration de la culture sénégalaise en Argentine mooy émission boo xam ni ñu fexe wane lan mooy culture Sénégal wane lan mooy. togg yi nga xam ne ñu ngi koy jëfandikoo biir Sénégal loolu nag suñu mbokku tubaab bi lañ koy jàngal xam naa du sénégalais yi lañ koy jàngal dinañu fexe suñu mbokku tubaab yi fi nekk ñu jàngal leen nan la ñuy toggee yenn ceeb yi xam naa su ma nee ceebu jën njóobeen yi dinañ ma summi waaye nu ñuy toggee ceebu jën nu ñuy toggee yaasa ak yeneen i plat yoo xam ne nii Sénégal lañ koy jëfandikoo te mu nekk loo xam ne nii lu bees tàqale doon ci immigré yi ci euh, argentin yi dina lañ ko fexe jàngal ñu tofteel ci beneen émission boo xam ne ñu ngi koy wax émission Modou Modou loolu nag muy émission boo xam ne mu ngi en cours de route ci soxna Ndey si moo koy présenté kooku kenn dootu ko présenté sénégalais yi mu benn actrice boo xam ne nii daare ko ci la nekkoon waaw muy actrice boo xam ne c'est une comédienne de renommée internationale boo xam ne kenn dootu ko présenté Sénégal muy soxna Ndey si moom mu ngi koy doxal ñu koy nuyu au passage ñu teg ci beneen émission boo xam ne mooy gis-gisu immigré ci doxalinu Sénégal muy benn débat boo xam ne sa sera ouvert képp koo xam ne am nga xalaat ci Sénégal ni muy doxee sur le plan politique sur le plan administratif ak sur le plan judiciaire noo jàngate Sénégal ban gis-gis nga ci am dinañ la invité nga toog ñu pencoo ko waxtaane ko wax lan nga gis ci Sénégal nan nga yaakaar ne buñ boo buñ ko doxewoon Sénégal jëm ci kanam pétrole ba fa feeñ lan nga ci xalaat sa xam-xam réew ma nan ko yore ñi nga xam ne ñoo koy ñoo ko bëgg a yor ak ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci war a yor réew ma te yoruñu ko ak ñi ko bëgg a yor bépp question boo xam ne ça tourne autour de Sénégal ak li ko wër ak li ko li ko yitteel dinañ ci waxtaan dinañ ci convoqué ñoo xam ne ni bëgg nañ cee débat incha allah ci loolu ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen wax ne Touba Argentine TV Touba Argentine TV woo na ñëpp ñu ci YouTube ak ci ak euh, Facebook. parce que programme bu Sénégal tamit am nañ ay correspondant yoo xam ne ñu ngi Sénégal dinañ ñu dëgtal programme màggal yi am Sénégal fête yi am Sénégal ak lépp nga xam ne boo demee ci Touba Argentine TV di nga am di nga nekk au diapason moo koy wax ne c'est la c'est la chaîne mousquetaire un pour tous tous pour un mooy lenn loo xam ne moom la ñépp bokk Touba Argentine TV mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam.